xew muy benn saisi euh, yamba boo xamante ne mu ngi toll ci 250 kilogrammes ñu saisir ko fii ci gaax bi est-ce que mën nga ñëwaat ci mbir mi naka la xewee. waaw mbir mi daal li mu xewee mooy euh, avant tout sax di féliciter la police nationale qui est là avec nous di xam ne ne démb ñun sax bi muy am dafa fekkoon ñu génn demoon ci benn dëj à bi ñu fa tolloo lañ ñu woo ne ñu am na lu fi xew la police am na ñu mu jàpp. bi ñu dellu see quand même euh, ñëw adressé au chef de poste mu expliqué ñu réellement ni mu que ni ci Mali yi la ñu saisiré euh, drogue boobu ngeen di wax. bon il s'est trouvé aussi que ne moom avec sa vigilance ndax euh, liggéey na ci yeneen corps yo xamné ne ci loolu lay chargé biko gañu rombé comme d'habitude ci la def xol affaire du suspect mu interpeller len bi len interpeller len leneen la sac bi gis ci muy yàmba boobu drogue bobu ci la len arrêté dal di dem nak euh, ci auto ya def fouy nee ci la jappé quantité bobu rep ñuy wax donc ñom comme d'habitude ils sont là pour la sécurité ñom euh, après gis nañ def inter euh, appeler la police le commissaire et tout ñëw bañu def ñom sen constat donc ñom ñu ngi continuer seen enquête mais affaire bi dal non la démé donc nous regrettons pas d'avoir la police ici avec nous ndax ñoom de tout le temps non les humains mel et c'est pas une première aussi Nous sommes fi suspect rek muy délinquance des agression ak loolu vraiment police est nekk fii ak bon ñun aussi rôle euh, nous avons nos éléments qui sont là à chaque fois que ñu quelque chose de suspect on fait appel à la police pour régler problème yi avec tout le monde que vous voyez ici nous avons a am sécurité am hygiène c'est aussi grâce à la collaboration

bon am na aussi yoo xam ne am nañ fi aussi sañuy vidéo sañuy vidéo surveillance yoo xam ne ñu ngi ci gaar bi yëpp ah gaar bi yëpp boo seetloo après na nga xool yëpp ay caméra la parce que am na aussi cas yoo xam ne dinay am dinay am mais ñun caméra yi moo ñuy aidé ba ñu jàpp nit ñi par exemple xam nga ak ah, ñi nga gis ñu kii di truandi nit ñi comme quoi kaay ma dugal ci oto wala ay cas de vol yooyu yëpp caméra yi moo ñu koy jox bu ngeen paree dinaa leen wan caméra yëpp mais même fi ñu taxaw sax ñun ñuy jël ñoom en même temps ni ngeen ñuy jëlee la ñuy jëlee bon dégg nañ ne nag am na ko daw mais xam nga ñun biñ ñëwee rek dañu adressé wu à la police au responsable ñu expliqué ñu bon dama ne aussi bu fekkee am na ko dawit du rëcc ndax fii Sénégal moom xam nga compétence police nationale bi bu dawet dina rëcc ndax oto baa ngi fi te oto bi aussi je pense que bu ngeen jaaree police oto ba saisir nañ ko ba nga police il paraît que aussi jàpp nañ apprenti auto, yi mais à partir de là avec enquête bi filière bi dinañ dem ba ñep dinañ feeñ kooku dal ñun ñu ngi lancer appel à tout le monde képp kuy sénégalais wala ngay kenen gis lo xamné ne c'est suspect wala baaxul na ko signaler ñu fait appel à la police parce que ñun yoy mom duñ ci duñ ci tergiverser

que le responsable est là lu fay génn muy nit di matériel bi dina ci donc nous sommes tous nga fay veiller ñun aussi ñu ngi D'après ba comme je l'ai nous avons nos nos nos caméras de surveillance qui sont là yooyu yëpp moo sécurité je dis que am na fi ba yooyu su fi duggee du rëcc moo tax j'en profite aussi pour wax que comme c'est un transport international bon te bagage yi day de dëkk ak dëkk aussi suñu mënoon am poste de douane pour que le contrôle soit gën rigoureux ñuy la police est là mais douane aussi am na droit nekk ci garage bi di fouiller bagage yi lu jógee dëkk ba dëkk war nañ koy seet war nañ koy seet loolu aussi appel boobu daal laa doon lancé buñ ko amoon dina baax ci garage bi